ñu sukkandikoo ci meeru commune Thiès sd Ousmane Diagne njàng mek njàngale mi daanaka lu ko soxal la looloo tax conseil municipal bi génnee lu tolloog fukki million ak benn jënd ci li nga xamante ne moo di ay fourniture kaye ak bic waaye tamit li nga xamante ne moo di ay table ban jaglel ko ñaara fukk ak benn école ya nekk ca commune ba. mu toll ci dix kaye 100 pages six mille cahier pages deux mille boîte de craie blanche. 1050 boîtes de couleur 4000 billes bleus et 1050 billes rouges Nous avons aussi 60 caisses carton papier A4 yoo qui est nii parce que dañuy avons ni école yi léegi jamono dafa dox ba bu ñuy def seen xale yi bu ñuy def examen école papier euh, feuille ay feuille blanche du ko